majalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara ونجني وحله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفعش حدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke yàlla na fi yàggaat lool ànd ak di ko ñaanal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Amdi Fall euh, moom sëñ Mouhamadou Fall Mbenda Mbenda Jaxunay ba Saala Penda mi da si ngaraaf yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér. waaye di ko ñaanal sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Bintu Fall xalifa sëñ Mouhamadou Abdoulahi Fall Ndar waaye di ko ñaanal sunu jàmbaar ju tedd ji muy sëriñ Abibu Mbacke. moom sëriñ falilu Touba ca kanam yàlla na sunu borom guddal aw fanam di ko ñaanal mbooleem njabootuk sëñ Touba gépp euh, ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni yéen a ngi feggoog liggéey bu tedd boo xamante ni at mune buñ tollee ci waxtu wii xel yépp dem ci socialu euh, Touba ca kanam waaye yéen a ngi fii ci kër soxna am Yalla Ndiaye di jàmbaar di kenn. Eh, ci Touba ca kanam eh, ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni Sonaam Yàlla ak mbooleem ñum ko àndal eh, ci biir réew mi ak bitim réew ñi ngi ñaan yàlla sunu borom guddal seen fan. social Touba ca kanam nag buñ ko tuddee xel yëpp day dem ci sunu jàmbaar ji sëriñ Abibu Mbàkke moom sëriñ falilu ñi ngi ñaan yàlla sunu boroom guddal aw fanam waaye di siyaare bu baax sëriñ Takko Fallilu ambassadeuru Touba ca kanam. ñu ngi koy siyaare bu baax sëriñ Takko Falilou ambassadeur Touba ca kanam waaye di siyaare bu baax sëriñ sëriñ Abdoulaye Abibou buñ ko tuddee mooy jëwriñu sëñ abibu Touba ca kanam ñu ngi koy siyaare bu baax sëñ Abdoulaye Abibou di ko ñaanal yàlla na sunu borom guddal aw fanam waaye di siyaare ki nga xamante ni moo jiite relation extérieure muy sëñ Abo Bousso jàmbaar ji ñu ngi koy siyaare bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko jaajëfal. waaye di jaajëfal ki nga xamante nii nag mooy jiite social muy Serigne Moutada Abdou Fata jàmbaar ji ñu ngi koy siyaare di ko jaajëfal waaye di siyaare sunu xarit sunu bunt ci kër sëñ Fallou muy sëñ Abdou Lahat moom sëñ Jili di sunu xarit waaye ñi ngi jaajëfalaat bu baax eh, ki nga xamante ni moo jiite Europe jëpp rek muy Baye sëriñ Gueye ñi ngi jël nuyoo bi ak ziar bi mu saareel ñu mu mu tasal ñu ko ci mbooleem gox yi fasantikoo nekk ci Europe gépp rek muy Baye Serigne Gueye waaye di jël cant gi ak ngërëm gi ak ak delloo njukkal gi di ko teg ak nuyoo bi di ko teg ci loxol sëñ Abdou Fatah yi mi nga xamante ni mooy président euh, Touba ca kanam waaye di siyaare euh, jëmm ju baax soxna Bintu Mbàkke moom sëriñ Abibu jàmbaar gi ndax sëñ Moussa Ka dañuy woon jaan ju góor ak jaan ju jigéen dangar ya ndax luggukat xàmmee ne leen ca jat ya jaan ju mu ci doon boo ko luggul mu ray la waaye ku xeeb jigéen ñi Bàmba doo am yàlla sonn bintu Mbàkke mu baax mi ñu ngi koy siyaare waaye bu ngeen gisee jotaay bi nga xamante ni ñu ngi feggoog sunu jàmbaar ji euh, sëriñ mi nga xamante ni di kenn ci son am yàlla bu ngeen gisee liggéey bu tedd bii nga xamante ni moom ngeen feggool muy yére yi nga xamante ni barki dem ba tey euh, mi ngi fi euh, di ko dajale di ko àmbale ngir mbokki taalibe yi mën koo jébbal jëwriñ yi nga xamante ni ñoo jiit Tuubaa ca kanam ci jotaay bi sunu yaay soxna Euh, jëmb ñang ñi ngi koy jaare bu baax ñang baalo ak mbooleem délégation bi nga xamante ni euh, feggoon na ak ñoom bu ci kanamee dinañ ko jox waxukaay bi mu présenté sunu yaay yi xamante ni feggoon na ak ñoom soxna am yàlla nag buñ ko tuddee tudd daayira maam seeni bu njaay buñ tuddee soxna am yàlla tudd présidente association Mika France bun tuddee soxna am yàlla tudd Baye Fa international buñ tuddee soxna am yàlla tuddu Paris Paul 10 waaye bu ñu tuddee Yàlla tudd daayira maam bu Njaay bu ngeen gisee soxna Amy Yàlla muy dem jaru ngeen laajte waaye yitte yi Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la def mbégte li ma neex ci yow da nga am engagement am fulla am fayda te bëgg changement waa ju bëggul boppam te fonk réewum moo lay takkal takkoo sunu yaay booy yaanu sagal soxna Amy Yàlla nag dafa am ñu ko yàlla booleel ci biir réew mi ak bitim réew ñu dajale alal ju am solo muy yëre yi nga xamante ni war nañ koo jëbbal Tuubaa ca kanam dañuy gërëm ki nga xamante ni kenn la ci daayira bi Paris pol 10 muy soxna nday Mbuub mu sëñ Fàllu borom këll gi ñu ngi koy siyaare ak mbooleem ñim àndal liggéey bi ay xaritam ay wóolëreem ay soppeem dajale nañ lim bu am solo indi ko fi muy soxna nday Mbuub borom këll bi waaye di jaajëfalaat bu baax soxna Fat Kiné Caam mu baax mi ñu ngi koy siyaare eh, di ko jaajëfal ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni ànd na ceeg ay wóolëreem ay xaritam ay soppam ay mbokkam jébbal ko Soxna Amy Yàlla Soxna Amy Yàlla war koo jébbal waa Touba ca kanam soxna Faat Kiné Thiam dañuy gërëm ki nga xamante nii nag mooy soxna Maguette côté Linguère indi na fi liggéey bu am solo ñu ngi koy siyaare di ko jaajëfal mook ay xaritam ay mbokkam ay wëllëreem ay soppeem soxna Maguette côté mu baax mi waaye di gërëm ki nga xamante nii nag mooy soxna Xadi Mbaw ñi ngi koy siyaare bu baax di ko jaajëfal ci liggéey bii nga xamante nii fekk na ci Soxna Amy ànd ceeg ay xaritam ay wóolëreem ay soppeem ak mbooleem bonne volonté yi ñuy gërëm baax soxna Xadi Mbaw waaye di gërëm sunu yaay yi nu feggool muy soxna jëmb ñang indi na fi lim bu am solo teg ko ci loxol son am yàlla son am yàlla war kaa teg ci loxol waa Touba ca kanam kon yaay jëmb ñi nga àndal ñëpp rek muy say mbok say xarit say doom say wóolëre say soppe say am di jàmm yëpp rek lii ngeen dajale indi ko fii ñu war kaa jébbal waa Touba ca kanam soxna jëmb yaay booy ñu ngi lay ziare bu baax. waaye di gërëm ki nga xamante nii nag mooy soxna Mbenda Diagne ñi ngi koy siyaare di ko jaajëfal Diagne naar ci liggéey bu tedd bi nga xamante ni soxna Mbenda eh, jébbal na ko soxna am Yàlla soxna Mbenda ànd ceeg ay xaritam ay wëllëreem ay soppeem ñi ngi ñaan soxna eh, Mbenda Diagne yàlla sunu borom guddal aw fanam waaye di gërëm bu baax soxna Buri Ndiaye mu baax mi ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax liggéey social bi soxna Buri njaay def na ci liggéey bu am solo ànd ceeg ay wëllëreem ay xaritam ay soppeem ak bon volonté yi soxna Buri ñi ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa doole maam Cheikh yàlla na suñu borom yokk see xéewal waaye di gërëm soxna Ulay du Kure mu baax mi indi na fi lim bu am solo ànd ceek ay wóllëreem ay xaritam ay soppeem ak bonne volonté yëpp rek teg ko ci loxo soxna am yàlla soxna am yàlla war kaa teg ci loxol waa Tuubaa ca kanam waaye ñi ngi gërëmaat bu baax sunu jàmbaar ji soxna am yàlla Njaay ak mbooleem ñim àndal ndax maam Serigne Fall doon wax jàpp leen ci liggéey sëñ Bamba bi ku si jàpp mu dem ku si jàppul mu dem jàpp leen ci mu mel ni yéen a koy doxal ngeen def sag bi daan na naan liggéey bii moo woote kun ci woo nga wuyu ñu diggal la nga def ñu tere nga bàyyi tabbi nga ci baax te baax bon nekkul ca wàllaa te ku ne xam na ni Touba ca kanam jëf jii ñuy jëf day jëf ju am solo ku ne xam na ni maam Cheikh Ibra benn téere la bind muy Jazbul Murid boo ci demee mi nga naan ku bëgg doom ci yàlla dangay joxe sa doom ngir yàlla ku bëgg alal ci yàlla da ngay joxe sa alal ngir yàlla soxna am yàlla ak ñi mu àndal mboolem daayira yi ku ne xam na ni son am yàlla at mu ne Europe lay dajalee yére yi yeb ko ci conteneur yi fayal ko mu ñëw mu ñëw Sénégal sëriñ mu baax mi dem jëli ko indi ko ci kër gi muy lim lim bu am solo te ku ne xam na ni ren jii la quatrième édition kon soxna am yàlla ak mbooleem ñi nga àndal yàlla na sunu borom yokk seen xéwal bu ngeen gisee enveloppe bii ñu jàkkaarloo ku ne xam ne enveloppe kaki la at addiya ju am solo nekk ci mu toll ci deux cent cinquante mille ñor kaa jébbal Eh, jëriñu Touba ca kanam ñu jébbal ko mboolem jaami yàlla yi kon soxna am yàlla ak mboolem ñim àndal ak mboolem daayira yi ak mboolem ñi nga xamante ni tudd naa leen buñ ci tuddee soxna nday mbaw soxna buñ ci tuddee ki nga xamante ni mooy soxna nday mbuub borom kër gi tudd ci soxna Fatou na ci am jàmbaar ji tudd ci ki nga ki nga xamante ni nag mooy soxna Maguette Côté tudd ci sunu yaay jëmb ñang mu baax mii waaye tudd ci ki nga xamante ni nag mooy soxna Xadi Mbaw ak ki nga xamante ni mooy soxna Mbenda Jaañ tudd ci soxna Buri Njaay tudd ci soxna Ulay Dukure ak mbooleem soxna am yàlla daayira yi mu àndal muy association Mika France muy daayira Suburu Salaam muy Paripol 10 muy Baye Fall international di jàmbaar ji nga xamante ni mooy daayira maam Seenum Njaay sëñ Cheikh Bintu teg ko ci loxoom mu jiite ko Europe ak li ko wër yëpp rek kon ñi ngi ñaan suñu jàmbaar jooju sëriñ Cheikh Bintu Fall ni mal xalifa du sëriñ Cheikh Bintu Fall xalafan mbat na xalifa ci lislaam waaye ku ni moom jafe na waaye ñi ngi ñaan jëwrinam ji muy soxna am yàlla ak mbooleem ñim àndal ci biir réew mi ak bitim réew waaye man di nekk di dégg suñu kàddu Soxna Amy Yàlla mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ci liggéey bii nga xamante ni àndi ngeen ko ñëwar koo jébbal jëriñu tubaa ca kanam yëpp rek kon bu ko defee dañuy jox sëriñ ci bis bu tedd bii nga xamante ni barki dem ba tey yaa ngi dem ak ñëw di dajale yëre yi ngir léegi rek ñu war koo jébbal euh, jëriñu euh, tubaa ca kanam euh, sëriñ ban yëg-yëg nga am ci liggéey bu tedd. liggéey bi daal kontaan ci rek vraiment kontaan naa ci trop trop trop waaw initiative bi ñu jël ca kanam di collecté ay yére di ko jox ay jaam loolu ak cant la ñuy ñaan yàlla rek mu jëm kanam comme ren mooy quatrième édition bi dé déwén yàlla na comme enveloppe bii ñu am ni déwén yàlla nañu am enveloppe bu ëpp ba enveloppe bii ñu am di ñaanal ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp ba déwén incha allahu rabbi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di kontaan ci ñii ma àndal kii Maguette Cissé lañ koy wax dëkk fii ñoo sësaloo kii maam say faal ñoo sësaloo kii ndey atta ñang ñoo bokk kër may sant ci taxawaay bi ñu taxaw ñoom ndax ami yàlla dañoo bokk koñ bi muy nit ku baax koo xam ne bañ na ko ba dañ koy tuddee Ami Yàlla Njaay Baay Faal Soxna Jaara Tuubaa ca kanam moom lañ koy wooye kon kooko li mu nekk dëggu na ci mu nekk nag ci jasporaa bi di liggéey liggéey bu am solo di def uh, di indi ay conteneur muy wàcc fii ci kër gi koñ bi li muy def ni yemalewu ko ci Tuubaa ci kanam maanaam yemalew ko ci Touba ci kanam ba ci koñ bi mu ngi leen di sédd yére yi da koy indi muy yére xale yi tuut tànk yeeg ay dàll lu nekk wóor na sëriñ mi koñ bi ñëpp lay sédd kon yemalew ko ci Touba ci kanam mu ne ca diaspora bi nag liggéey liggéey bu rafet muy sama njëkkee di sama genn wàll mu ne ma yow de ren jii dinaa la boole ci ñiy laaj Touba ca kanam ma ne ko loolu de bu ma ko boo ma ci boolee dinaa sant yàlla ndax comme sa liggéey bu rafet bi ngay liggéey te dangaa yaatal bàyyi woo kenn kon boo ma ci dugalee dinaa sant yàlla moo waral sama teewaay tey fii ma am ci contentement bu rée rée rée ndax man damaa ne fii ci koñ bi ak sama nawle yi may taalibe sëñ Babacar boole ci mu naa ma ne ko ah, daayira sopp da baax man mii lañ def seen yaay yaay yaayu daayira sopp da baax Malick kon soo ma ci boolee yaatal nga te boole nga ñëpp ma wax ko sama nawle yi ma dëkkal ci koñ bi ne leen ah ren de moom dañ maa boole ci marraine yi Touba ca kanam ñoom ñëpp ñu am ci contentement ku ne andi nga juróom baa juróom benn dañ maa jox ba Thiès jox ma sama Thiès laa dëkk ñëw sëy si fii mais dañ maa jox ba biig li ñëwoon moo tax mu yéex a dikk nii Thiès sa jóge ñoom ñëpp ku ma ko wax nga am ci contentement ak ci mbégte ni ma Touba ci kanam daal sunu loxo ci biir lii da ngeen koo yeexe koñ bi fu ma taxaw ñu ne ma lii dangeen ngeen koo yeexe bu yàgg ngeen ko war a def kon Amy yàlla Ndiaye moom la ñuy sant di ko gërëm liggéeyam rafet na dañ koy ñaanal gudd fan ak wér gu mu continuer liggéeyam dara bañ koo téq ndax dafa yaatal bàyyiwul murit bàyyiwul tiijaan bàyyiwul xaadir bàyyiwul laayeen ku ma gis xëcc la dugal la ci biir Touba ca kanam te kum ko waxee da nga ciy békk ndax lu baax ñëpp a ko bëgg ndax sëñ Touba ñëpp a ko bokk ba mu ko waxee dañ cee békk lool ñu ci ànd ak contentement yow sëñ Xaadim ñu ngi lay sant di la gërëm sa taxawaay rafet na ba nga ñëwee biig ba léegi yaa ngi jàpp di defar sonn ci bay bëgg a dee kon ñu ngi lay sant di la gërëm yàlla na sa taxawaay yàgg sëriñ it ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ndax yow it sa taxawaay gis nañ ko ci kër gi ni nga jàppale ami ami new fi waaye daraam tardewul yére yi danga ko jëli def ko ni mu ware ni mu la ko sante nga defe ko noonu kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaana yàlla yàlla bàyyi la ami dara bañ a dox seen diggante ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan lii ca kaw ca kanam bu déwénee daal yàlla nañ fi indi ko yàlla nañ fi indi ko enveloppe bi yàlla na gën a duun déwén yére yi yàlla na gën a bari ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan kontaan rek lañu am ci Touba ca kanam nag ak mbégte ñu ngi sant bu baax a baax wasalaam. jëf mbokki taalibe sunu yaay jëmbu ñang sopp da baax ndax Bamba nga yor xaqiqatul munawara Maodo nga yor mu taxara ndax lii mooy si waxtasimu bi abdillahi jamian wala tafaraqu ñu jàpp ci gojo yi yàlla gi bañ a tàqalikoo ngay taalibe ak Sidi Hadji Malick yaakaar ko. soram ya la jël la def la marin ci Touba ca kanam ci liggéey bu tedd bii nga indi fi teraangu yu am solo kon ñi ngi ñaan soxna si yàlla na suñu borom guddal aw saw fan waaye di gërëmaat bu baax ñi nga xamante nii nag ñooy jàppale soxna si ci biir réew mi ak bitim réew ndax sans masque boo nekkee bitim réew ñu woo ci liggéey Sëñ Tuubaa wala jaayante buy laaj xaalis souvent bu ñu woowee sans gi dañ naan wut xaalis moo ñu yóbbu ci dëkk boobu te sama góor ga nee na wut xaalis ku mu yóbbu ci ab dëkk di nga wut ba sonn doo am dara da ngay amus tuut ba noppi rawale sa ngëm kon ñi nga xamante ni ñi ngi ànd ak soxna am yàlla di ko jàppale eh, ci liggéey bi muy mboolem daayira yi daayira yi nga xam lim naa leen association Mika France daayira Subulu Salaam daayira Maam Seyni bu Njaay Paris Paul 10 Baye Fa international ak mbooleem daayira yi groupe WhatsApp yi nga xamante ni ñi ngi jàppale eh, soxna si ci liggéey bi ak képp koo xamante ni yaa ngi ci biir groupe ya soxna am yàlla mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant di ñaan liggéey bii ngeen ànd yàlla na sunu borom ful ko waaye di jaajëfalaat ñi nga xamante ni ñoo jiite liggéey bi sëñ Abibu moom sëriñ Fallu jàmbaar ji ndax ñun Baay Faal yi lañ nañ Cheikh Mouhamadou Fadal njuggal te soxna amee la bay Faal la jëwrinu maam seeni bu Njaay la waaye day jàmbaar yi maam soxna jaara sëñ Abibu murit yëpp ñoo koy ñaanal gudd fan ak wér waaye di ñaanal ambassadeur am bi sëriñ Tàkko Mbàkke Falilu ñi ngi koy ñaanal ambassadeur Touba ca kanam yàlla na sunu borom guddal aw fanam ak mboolem ñi mu àndal waaye di gërëm bu baax sëriñ Abdoulaat Abdou Fata sëñ Abdoulaat Abibu sëñ Abdoulaat Abibu ñi ngi koy gërëm bu baax sëñ Abdoulaat Abibu ñi ngi koy gërëm bu baax moom sëñ Abdoulaat Abibu di jëwriñu sëñ Abibu Touba ca kanam sëñ Abdoulaat Abibu mu baax mi jàmbaar ji lool soxna am yàlla mi ngi lay gërëm di la sant waaye di gërëm ki nga xamante nii nag moo jiite relation extérieure muy sëñ Abo Bousso ak mboolem ñi mu àndal ci relation extérieure yëpp rek sëñ Abou Bousso son am yàlla mi ngi lay ni sant mi ngi leen gërëm di jël nuyoo bi ak ziar bi nga teg ko wasaareel ñu ko fépp waaye di gërëm bu baax ki nga xamante ni moo jiite social muy sëriñ Murtada Abdou Fata bu yàggul ñi ngi daje Mauritanie ci màggalu Sarsara mu teewal fa mboolem Touba ca kanam ànd ak sëñ Mbay ak mboolem jëwri ni kon sëñ Murtada Abdou Fata ñi ngi lay gërëm ñi nga seqal social bépp soxna am yàlla mi ngi jël ziar bi teg ko ci sa loxo nga wasaare ko mboolem mu jàll fépp waaye di gërëm euh, ki nga xamante ni nag mooy bay Serigne géey ku tudd Europe tudd Baye Serigne Gueye Europe yëpp moo ko jiite dañuy jël nuyoo bi ak ziar mu tegal ñu ko ci mboolem jëwrin yi ak mboolem yi Baye Serigne Gueye waaye di gërëm ki nga xamante ni nag mooy jàmbaar ji mooy président bi muy sëñ Abdou Fatah Gueye buñ jëlee nuyoo bi ak ziar bi mu tegal ñu ko ci mboolem bànqaas yi xamante ni fasantikoon na ci biir réew ak bitim réew di dox ci yittey Touba ca kanam waaye di gërëm soxna Bintu Mbàkke mu baax mi ñu ngi koy gërëm ñi ngi jël nuyoo bi ak ziar bi teg ko ci loxoom muy saare nañ ko ci mbooleem euh, soxna yi kon liggéey baa ngoog ñi ngi ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg loolu ànd ak wér waaye di ko ñaanal sëñ Amdi Fall Muudu Mbenda waaye di ko ñaanal sëñ mu sëñ Fall waaye di ko ñaanal suñu xalifa bi sëñ Abul Baraka waaye di ko ñaanal suñu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Bintu Fall mi nga xamante ni mooy jàppale son am yella ci liggéey bu tedd bii di xalifa sëñ Mourou Ablaye Fall Ndar yàlla na suñu borom euh, guddal soo fan waaye di gërëm suñu caméraman bu baax bii sëriñ Mbay ñi ngi ñaan yàlla na suñu borom yokk site bi allahuma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa salama taslima barke borom Tuuba xaadim madina moo nekkoon ci kaddu gi édition 2023 sociale bii nga xamante ni soxna Amy Yàlla Ndiaye dajale na ko ak mboole ñu mu àndal war koo jébbal Tuuba ca kanam ñi ngi ñaanal sëñ Abibu yàlla na sunu borom guddalaw fanam jërë ngeen jëf. di ko ñaanal bu baax sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda waaye di ko ñaanal sunu jàmbaay gi sëñ Abibu Mbàkke mi nga xamante ni mooy Touba ci kanam tudd Touba ci kanam tudd sëñ Abibu yóbbaale na mbooleem jëwri ni waaye di ziare bu baax sëriñ ki nga xamante ni mooy sëriñ Tàkko Falilu ambassadeur Touba ci kanam ñu ngi koy ziare bu di wàccu waayam waaye di ziare sëñ sëñ Murtala euh, Abdou Fata ñu ngi koy ziare bu baax waayam waaye di ziare sëñ Abdoulaye Abibu di ziare sunu xarit suñu bunt ci Touba ci kanam suñu Laat Jili moom sëñ Fallou ñu ngi koy ziare bu baax suñu xarit waaye di ziare sëñ Abo Bousso waaye di ziare bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Baye Serigne Gueye jiite Europe yëpp waaye di jaajëfal ki nga xamante ni euh, mooy euh, sëñ Abdou Fatah Gueye ñu ngi koy ziare bu baax a baax waaye di gërëm soxna Bintu Mbacke mu baax mi euh, ci liggéey bu tedd bépp ñu ngi koy ziare bu baax a baax baax a baax waaye suñu jàmbaar yi soxna am Yàlla Ndiaye mi nga xamante ni moo jiite Paris Pôle diis ba noppi am yeneen daayira yoo xamante ni dañ koy jàppale ci Touba ca kanam bu ñu tuddee association Mika France tudd Paris Paul 10 tudd daayira Maam Seynabou Ndiaye tudd daayira Subu Salaam tudd Baye Fall international Baye Fall international day mboole day yóbbaale mboolem euh, jëwriñ yi nga xamante ni Soxna Amy Yàlla ànd naag ñoom liggéey bi waaye di jaajafal sëriñ mi nga xamante ni moo nekkal Soxna Amy Yàlla ci kër gi euh, bërki dem ba tey mi ngi fi di dajale euh, di paqueté ngir liggéey bu tedd bii nga xamante ni war naa jëm ci jaamu yàlla yi kon ñu ngi ñaan ci battu sëñ Fallu yàlla suñu borom yokk seen xéewal bu salaam tudd Baye Fall international Baye Fall international day mboole day yóbbaale mboolem euh, jëwriñ yi nga xamante ni Soxna Amy Yàlla ànd naag ñoom liggéey bi waaye di jaajëfal sëriñ mi nga xamante ni moo nekkal Soxna Amy Yàlla ci kër gi euh, bërki dem ba tey mi ngi di dajale euh, ngir liggéey bi tedd bii nga xamante ni war naa jëm ci jaamu yàlla yi kon ñu ngi ñaan ci battu sëñ Fallu yàlla na suñu borom yokk seen i xéewal waaye Soxna Amy Yàlla dafa am ay jëwriñ yoo xamante ni ñoom ñoo bokk liggéey bi buñ ci tuddee day mbuub di jàmbaar borom kër gi bëgg fàllu ni mooy soxna Fatou Kiné Thiam tudd ci euh, soxna euh, Oulaye Doucouré tudd ci ki nga xamante ni mooy soxna Khady Mbow soxna Mbène Diagne ak soxna Jëmbu Ñang ak ki nga xamante ni nag mooy soxna Buri Ndiaye euh, ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yokk seen i xéewal ci barkeb maam si Ibrahima Fall waaye ci barkeb suñu jàmbaar gi si ñaab bi bu Mbàkke Falilu soxna am yàlla liggéey bi da cee boole enveloppe bii teg ko ci suñu loxo ñu war koo jébbal waatu Touba ci kanam mu toll ci deux cent cinquante mille francs CFA. mi ngi ñaan bu déwénee yàlla na doon ay millions. ndax lii ngeen di def euh, day lii ngeen di def bu ngeen demee ci téere maam Cheikh Fall mu bind muy jëful murid mu ngi naan ku bëgg doom ci yàlla da ngay jox sa doom ngir yàlla ku bëgg alal ci yàlla da ngay sa alal ngir yàlla. te ku na xam ne le 10 bii passé Espagne. mbokk yi ñu toog ci biiram ak bitim réew gis nañu liggéey bu tedd boo xamante ne Serigne Abibou lancé woon na ko 12000 murid murid bu ne 100 euros. Hmm. muy liggéey bu am solo. 100 masse bii nag boo nekkee Europe bu ñu la wooyee ci liggéey Sëñ Tuubaa da nga naan ah wut xaalis moom yóbbu ci dëkk bi. te sama googu ne wut xaalis ku mu yóbbu ci ab dëkk. Hmm. di nguur ba sonn doo am dara da ngay tuut. ba hmm. noppi rawale sëngëm ci Tuubaa ca kanam gii. kon ñu su tedd yi nga xam ne boole nañu. ak moom ñu war a jël liggéey bi jébbal ko mu toll ci 250 mille francs CFA. jërëjëf soxna si jërëjëf jërëjëf بابات مثلك ما بجاي خير ما نبات وجل إلهي مسكني بابات مثل اسمها بجاي خير من نبات وصليا علي عبد الصلاة والي وسبي سوي الصلات وكل من قدمني أوسارا فنجني وخله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفسخ دنا ومالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربيا فلتكفني عسى جميع العالمين ولتقضي مسايا رب العالمين wajal binaaye binaa amaafiya yajurruni la xuyurin saafiya wajal binaaye binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa ilmi wajal binaaye binaa